أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم سيدي تالو يا منتقى منتقى كنزنا فجلنا من سيدي تعالوا ما خلت للدهر هنا يقتى في أسارة لفقد قائدنا صادق سيدي تعالوا ما شاء ما شاء الجليل بنا راديت ما فيه من كربنا وسيدي تعالى إذا ورث الله بدل فقد قدواتنا ما نور هنا جامع سيدي تالو فزنا بنيل الوراث الخير محسنون من نور والدي معنا سيدي تالو يا ملجا الخير مسيلات في الأفق جميعها حسن لما سيد تعالى يا ربي بلا مصدفة أنت الآلي صمد أحسن ما دان نبيه يا ربي سيد تعالى amina ya sataro No mina La commémoration de la ziyare Tcherno Seydou Nouroutal et Tcherno Muntaga Ahmed Tal qui est organisée chaque année par le Khalif Tcherno Madanital, avec les deux branches qui sont à, côté, ses côtés, à savoir Ahbab Shahumar et Rabite, la Ligue islamique. Cette année est une année particulière pour la Ouma islamique et pour Tierno Madani lui-même, puisqu'il s'agit des 40 ans du rappel à Dieu de El Hajj Tierno Seyd notre marabout. Et c'est pour cela que toutes les manifestations qui seront organisées cette année autour de la Ziara tourneront autour du Saint-Homme, que ce soit de la conférence au King Fat Palace euh, sur le thème crise et déviance sociétale au Sénégal, quel remède à la lecture du Coran et de la vie de Tcherno Nouroutal. Donc cette conférence tournera essentiellement autour des enseignements et de ce que nous a légué le Saint Marabout. Ensuite, nous aurons, comme à chaque année aussi, un parrain. Cette année, le parrain qui a été choisi par Tierno Madani est la famille Seyd Laj Il Eu égard à toutes les relations que vous savez tous, les relations qui existaient entre euh, Tcherno et son marabout, Seyd Malik Si, radiallahu ta'ala anhu. C'est pour cette raison que puisque nous célébrons les 40 ans de son rappel à Dieu, Morani a choisi la famille de Seyd Malik Si pour qu'il soit le parrain accompagnant ainsi les travaux qui tournent autour de Tierno Seydou Cette année aussi, la Ziara fera un focus essentiel et important sur le projet de construction de la mosquée omarienne. Vous savez que cette mosquée a été construite et érigée par notre marabout Tcherno Muntaga, Amadou Muntaga Tal. Et c'est la première mosquée qu'un petit-fils de Elage Omar construit lui-même et porte le nom de Cheikh Omar Foutiou. Donc cette mosquée-là, c'est la, mosquée de toute la Oumma islamique. Ce n'est pas la, mosquée des Halpoulars ou des Foutanké, ce n'est pas aussi la mosquée des seuls Sénégalais. C'est la mosquée de toute la Oumma islamique parce que nous savons en général que toutes les délégations étrangères qui viennent ici à Dakar prient le vendredi ici, dans cette mosquée-là. Donc, il est essentiel que nous faisions cet appel-là à toute la Oumma, à toutes les daïres de jeunes, de femmes qui sont à l'intérieur du pays et dans Dakar pour que pendant cette ziarah là ils amènent, ils apportent leur contribution à l'édification de cette mosquée pour en bénéficier de tous les avantages, Inshallah. La troisième, la quatrième chose que nous voudrions porter à l'attention de tous les pèlerins, c'est que ce sera aussi les 40 ans de la naissance de Ahbab Shahoumar. Ahbab Shahoumar, qui est l'association qui organise la ziyara de Tcherno Seyd Tal et de Tcherno Muntaga Alors, Ahbab Oumar, qui était conseiller des amis de Tcherno, Tcherno qui ont créé cette association autour de lui et qui lui ont permis, qui l'ont assisté à mettre en place, à mettre en œuvre cette ziara-là. D'ailleurs, trois d'entre eux, les derniers qui étaient en vie, sont partis ces derniers temps entre le mois de décembre et le mois de janvier. Il s'agit de M. Abiboudak, de M. Tcherno Umar et de El qui sont partis récemment, qu'Allah ait pitié de leur âme. Donc toute l'association et toute la Oumma et toute la Khadra Oumarienne euh, auront l'occasion effectivement de leur rendre de vibrants hommages parce que c'est eux-mêmes qui sont le fondement de tout ce socle-là. Bien sûr, avec ceux qui sont partis avant eux et qui ont avec eux constitué cette association-là et permis d'organiser la, la grande ziara vers laquelle nous nous acheminons. Donc c'était ça l'appel c'était ça le, fondement de l'appel que Thierry Madani nous a, insisté pour que nous fassions. Nous vous demandons à vous tous de contribuer à la bonne réussite de la Ziara. Nous remercions tous les journalistes qui sont venus ici aujourd'hui, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse, regardée, que ce soit la presse, presse parlée et que la presse en ligne. Nous vous remercions tous d'avoir été les moteurs de cet événement-là et nous vous invitons à ces, toutes ces journées de la donc, qui se dérouleront du 23 au 27 janvier, ici même au niveau de la mosquée omarienne. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى bokk jullit yi su ngeen gisee toogaay bi toog am na lu mu leen war a fàttali mooy génnu Ceerno Saidu Nuur radiyallahu taala anhu 25 janvier la woon at boobu su ñëwee fépp fu njabootu jullit nekk dina xalaat bés bi ndax dafa nekkoon góor goo xamee ni dafa liggéeyal lislaam kon su bésam boobu ñëwee njabootam ak am di jàmmam ak ay soppeem dañuy daje ci bërëb bii pour defal ko ay ñaan dañu bëgg a seetaat yan garab mooy mooy tax société bi baaxaat ñu ne nag léegi amuñu keneen ku gën loolu ndax am nañu góor goo xamee ne dund na téeméer ak fukki at ak juróom benn muy Thierno Saïdou nuur nan la dundee woon si dundam lan la doon def ñu fexe jël si dundam seet lan lañ si mun a jël ba faj si njaboot gi ak société bi kon conférence boobu dina def le 23 Sticking faat dix heures lay commencé euh, su ginnaaw boobu su conférence bi weesoo euh, vendredi bi ñëpp xam nañu julli juma julli dinañ jóge fu nekk ñëw ñu daja fi julli si juma suñ jullee jumaa ngoon bi dinañ def xadra suñ defee xadra boobu suñu paree Thierno Madani dalal gan yi waxtaan ak gan yi génnee mission euh, lu mu war a wax li lan la war a wax ak njaboot gi loolu di dina am mooy anju ajjuma bi samdi bi di comme niñ ko doon defee dinañ def ay ñaan yoo xamee ne dañ ko jagleel mag ñi jagleel ko réew mi jagleel ko adduna bi yëpp ndax ñaan addu'a u silahul mumin jullit su jaaxlee na delluwaat si ku yor yi mbir yëpp mooy yàlla ñu ñaan ko ndax yàlla wàcceel ñu jàmm wàccee jàmm si adduna bi wàccee xéewal si adduna bi loolu dina am samdi bi ak dimaas bi mooy cérémonie officielle bi fan yooyu yëpp dinañu def ay ñaan ay xatmu Quraan yi dinañ ko def cérémonie officielle bi samedi la si ngoon foofu la ñuy daje officiels yi ñëw gan yeneen yi ambassadeurs yi ñëw ñu daje waxtaan ak ñoom di altine bi boobu mooy euh, raabida daje def seen conférence bi ñuy doon bu ñu doon def bi ligue bi ñu daje waxtaan si loolu mais ziyaara ren bi daal xusuusiyam mooy ñëpp xam nañ ne jumaa ji dañ nekk si liggéeyaat ko kon ñuy fàttali jullit yi jumaa néegu yàlla la néegu yàlla nag su wootee jullit bu ma bu bu bu texe di nga ñëw def ci sa dërëm man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla kër yàlla tabaxal la kër ci àjjana ku tabaxal yàlla jàkk yàlla tabaxal la kër ci àjjana mais soo waxee tabax kër dañuy ne kooku de borom alali yi yonent bi dellu defaat récupération ne walaw qadra mafxasati qataatin même su dee loo xamee ne picc fu muy tëdd tàggu picc nga ci def yàlla dina la tabaxal kër kon nag loolu mooy xusuusiya bi ñu ngi siy woo jullit yëpp di fàttali leen bés yi di ñëw muy le 23 24 25 26 ba le 27 fii la ñuy daje di def ay ñaan yàlla nañ yàlla nangul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Amina ya sataro tamimalahu Nura namina nurimi nurilavilayah